El Hadj Ahmed Aidara bismillah Abdoulaye Wade ak Khoureyssi Thiam day tuumaal nañ leen ci sàcc juróom-ñaari milliards laa ilaha illallah bu ñu sukkandikoo ci direct info wàllum licence de pêche la juróom-ñaari milliards tërbine yéen a kaay ne juróom-ñetti milliards la Greenpeace ah ñoom daal ñoo faram-fàccee kon ab bataaxal di ab kayit goo xam ne li jaarul yoon ci la nga xam ne ko noonee la ñu doon joxe daal ndigal ngir ñuy napp kon ci suñu géej ji diggante weeru mars 2011 ak weeru avril 2012 xoree si kon la ñu tudd ca mbir mu réy ma scandale ba xoree si caam ci tribune yéene kaay ne du dëgg lan moo tax kon ba Sénégal di bañ ne du joxe kon ay autorisation ndigal ngir kon ñuy napp ci géej gi te loolee dama ko waxtaanee woon kon ak président ba mu jox ma ca ndigal na kon ci keesu nguur gi loolee neex naa vérifier vérifier le populaire ne goo gee ñi ngi sàkk ñu teg loxo Khoureyssi Thiam Abou Abel Thiam ci le pays au quotidien ne képp koo xam ni kon luubal nga fi ab fistine da ci indi kon ay jindi Macky Sall nag lañ bëgg kon mu indi ay jindi bu ñuy sukkandikoo ci ndawu M23 yi ci tribune yéene kaay xale yooyee nekk ci M23 ñoom daal nee na loo ñu jàpp kon mel na ni Macky Sall mii daa commencé kon di fàtte ay digéem yi nga xam ni kon digée woon ko fi ci campagne bi ndawu M23 yi nag ñi ngi préparé ah ah boo xam danañu ñaax kon askan wi toogaanu ñax toog amu ca mook ay gaayam nekk kon ci M23 googe nee na ñun daal li ñu jàpp mooy Macky Sall daal nii nga xam ne noonee lay doxalee ah, xoolal ma wàllum audit yéex goo xam ne yéex na ni mi ko nañ ko ca wàññi gi nga xam ne waxoon nañ ne danañu ko wàññi dund gi xoolal ma ni mu yéexee yorin gi nga xam ne kon moom la ñu yor ndimbal gi ñu waroon a jagleelee kon sinistré yi ni mi ko nañ ca kon kumba am ndey kumba amul ndey parparloo waaw waaye tamit xam ne kon moom la ñu nimmiku ci wàllum aarona si waaye tamit mbirub xam ne kon moom la ñu reyoon ca sàngal kam ah ñoo nekkoon ci nguurug Abdoulaye Wade gae lu ci mel ni Aminata Ñaan Seynabou Ly Ibrahima Ndiaye ñooñee nga xam ne ci nguurug Abdoulaye Wade gi dañ leen a dénkoon dañu waroon leen a koon audit loolee day nuru ne dañ leen a koon bëgg a cay M23 Y'en a marre a marre googee wala Fou Malade ah libération yéene kaay nee na nekk ca Mbàkke day tontu nañu leen Oumar Ndiaye ne duñu nangu benn yoon ay nit yu mel ni Fou Malade ak ñi mu àndal di mouvement boobee yaanaamaar ba mun jéem fee nekk naan day jéem a kon téqatal di jéem a déstabiliser nguuru Macky Sall gi lay président Macky Sall président ci la soleil yéen kaay naqarlu na bu baax a baax armeel di sëgu catholique yi nga xam ni kon ñu ngi ko def jëf ju bon ji ci diwaanu Ndakaaru gi la dugg fa caxat-caxatee ko am kon luñ fa sàcc le pays au quotidien loolee nag du fi lu bees ah yàgg nañ koo def kon ci sëgu catholique yi ay samba surabaali kon di fa dugg di fa ay jëf yoo xam ne yu ñaaw a ñaaw waaye boo yoon gaa yee jóg lu ëpp nag turu bii nga xam ne ñëpp dañu leen xamee kon ci jàmm ñëpp dañ leen xamee kon ci jéggale di baale tolérance waaye bi yoon nag mbir mi kon dafa ëpp te ñoom nag jàpp nañ ne xeex seen diine taxul ñu def leen lii de déedéet ñi def lii kay bëgg alal rek kon la ñu ca dugal te yomb lool ngir yi nga xam ne moom lañ sàcc ci biir armée lu catholique yooyee ko ci réew yi nga xam ne kon ñoo ñu wër ndax réew ñu wër nii ci bare bari dañoo bëri kon ay chrétien yéene kaa gi ne looloo tax nag enquêteurs yi fi mu nekk ni le ñu jàpp ne kon seen enquête boobu pee nañ ko jagleelee bitim réew rek doomu bitim réew na fi ñëw kon niki tey le quotidien yéen kay ne François la de njiital France gi discours am gi kon la xaar buñ ko méngalee ak discours bi fi Nicolas Sarkozy kon njëkkati woon le soleil yéen kay ne tey lay ñëw waa Côte d'Ivoire démb la ñëw cay match bi cay match bi tribune yéen kay ne billet yi nga xam ne dañoo xamle woon ne kon dañu ñu ko may jaglelee ko kon supporters yi ñoom supporters yoo jee commencé nañoo am kon lu leen miti ah waaw waaw mais loolu kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo ñu jiite te jëluñu kon kon buñ trafiqué billet yi waaye trafiquant yoo jee de ah téeméer ñu koy jaayee kon juróom-benni téeméer juróom-ñetti ministre sport ah jokkoo ak moom suufeel mbir mi sax la def tuutil mbir mi ba nga xam ne maara day taali moo taxit ñu am xel mu ñaaw ne gaa yu gàkku yée luy njéeg ñooy njaak waaw ñoo mel ni daal daanaka lu lëkkaloo ak yi jar naa laaj de laas ne bi ñuy jokkoo ak ñuy yëngu ci football bi mais dañ wax ne alaaji maali gàkku ci boppam moo dérégler match bi waaw waaw lan mooy ndayuk maali gàkku sàkku di jël lu ci tolloog fukki junni ci ay billet di ko jox kon douzième gaynde te yow douzième gaynde matuñu sax juróomi junni ci ay doomu aadama Malick Gakou indi coow li moo dérégler match bi match day am na diggante CCBM ak l'observateur réew mi quotidien ne Serigne Boub tey juróomi milliard lay sàkku ci l'observateur bee Youssou Ndour moom la ilaha illallah te nee bu jotee juróomi milliards yoo jee daara ci boppam la koy jox ci Sénégal cay Sénégal termine yéene ko ñii a ah ñooñee kat dañoo bind ne mu demee ak Bruxelles caméraman ba ko doon filmé daane mes ne men teng daal ko ndaw Bougane Gueye Dany xam le ne c'est pas vrai c'est faux rédaction bu fees Dakar Plus bu ñu jokkoo woon ak ñin danañ leen expliquer mbir ma na mu demee boo leen gisee Pape Cheikh Diallo ba muy ñibbi si àndul ak caméraman parce que ko doon filmé caméraman ba ca Angleterre la dem filmé ji doxanto El Hadj bare tey la koy tekki seen TV maa la wax lii te caméraman boo waa fees Dakar ca coowal góor jigéen de la ilaha illallah libération yéene kaay ne ko maa lay faram fàccee lépp Tamsir Ndiaye Jupiter mook faram wii di Makhtar Diop Diagne commerçant la ñaar yu góor jigéen waaw ku amagul fukki at juróom-ñett bu liir journal bi de wala borom xol yu oyof yi ah Tamsir Ndiaye Jupiter moo invité Makhtar Diop Diagne moo mee ca bureau UNESCO waaw mu dikk mu ko damaa bëgg ñu sëy la ilaha illallah ah cent mille laa lay jox bu ñu paree ak mbasin jesner pour sa tabaski bi Makhtar Diop Diagne moo mee daal di d'accord gis boppam maanaam mujj ne xarañ waaw waaw Tamsir Ndiaye jupiter lànk ne du ko jox dërëm coole ta xaranaase xeex ba jalaañoo police ñëw roñ leen bañ leen di dëglu la Matar Diop Diagne mii expliqué lu ni mel Tamsir Ndiaye jupiter ñu laaj ko mu nangu ne góor jigéen la waaye ni waa ji nittalee histoire bi du dëgg la ilaha illallah la ilaha illallah libération yéene kay ne enquête kat ya delluwaat nañ ba ca bureau Tamsir Ndiaye jupiter journaliste siège u UNESCO waaw lañ fa fekk doy na waar ah sperme ndoxum góor ma jalaañoo ca bureau ba la ilaha illallah fekkate nañ fa ab moo xam ni moom la góor jigéen yi di jëfandikoo ngir bu ñuy sëy sëy wa kon mën a yomb astaghfirullahu lazim laa ilaha la allah laa la illa allah enquêteurs ya yamuñ ca parce que gis nañ fa tamit ay film ay vidéo pornographique porno yoo xam ne ay góor jigéen tubaab ñoo ko joué laa ilaha illa allah Tamsir Ndiaye Jupiter moom mais ak Matar Diop Diagne commerçant ba ñoom ñaar tey ji lañ leen di jébbal procureur de la république laa ilaha illa allah lii dee tey du am tàggu ay alaaji tëjal ak tijjil ak xaw ma doos di kal ak nday xadi jaam xaw kii daal roñ samay bagage roñ samay bagage comme ni ma tàggoo démb ca tës de daal laay tàggoowaat tey roñ samay bagage te demes demes dem sama la ilaha illallah